salaamaaleykum sénégalais yi sama mbokk maa ngi leen nuyu yéen ñëpp introduction ci président Ousmane Sonko laay ñëw lan moo tax mu raw politiciens yëpp Ousmane Sonko den fooye mel ne xale di fo den mel ne ay xale politiciens yëpp Ousmane Sonko comme ay xale la yor xam li tax yàlla ku dugg ci 18 mu fooye la yàlla kenn du dugg ci ay 18 boo amee 40 jours si sa biiru yaay

yalla ka tracé non mais yeneen politiciens li tax ñuy dugg ci kàmb gi ba sulu ba ñom ñëpp ñi ngi retraite tout le monde euh, il veut devancer leur destin dañuy jiitu sen destin bëgg sen destin top leen ñom ñoy tracé sen vie ñom non c'est comme ça on va perdre il va pas être ça il va perdre ta sen destin nek sen ginnaaw buñu ñu ni destin bi top yoonam ñu bëgg retourner top ko Ousmane Sonko ne dafa teel top destin fu ka destin bi orienté mu top ko c'est ça la vie aduna da nga xam da ngay xam aduna ba pare songo songo aduna àdduna des fois politiciens yu bëri dama leen di xool quoi ma ni dañu xamul faalu lima ma yorit ki ni lu ma neex lay def te kenn mënu ci dara Ousmane Sonko dafa xam li Yalla bind nan lay nan la ko Yalla waxé lay mu top ci fu Yalla jaara rek mu ni la ko Yalla bëggé di frère di suivre destin ñeneen ñi ni nono destin bi ñun ñolay diriger. ñi ko diriger ñëpp destin bi seen destin yóbbu na leen ci touche yi retraite lan dem parce que ñi ma fi gis ni nan liggéey loo xamante ni leen fi jëlee du yomb ndax population bi leen fi dul jëlee yéen ñëpp jàppale ni yéen a ngi retraite loolu introduction la rek gars yi pour ñu bàyyi ci xel bu baax xam ne kenn du xeex ak sa destin voilà. deuxième bi mooy yéen sénégalais yi nekk ci département commune yëpp. laa wax commune yëpp tout le monde. prenez votre responsabilité. seen maire yi ñu fal maire commune wala maire département euh, maire maire commune wala maire ville yéen a leen votel yéen leen fal te commune bi seen commune la yéen a fa dëkk dëkk ci koñ yi jël leen seen responsabilité maire bu fa campagne oon 2021 campagne wër ba tas wax leen wax leen xool leen li mu def ak li mu deful li mu deful def leen ay délégation ay regroupement dem ba ca mairie ba ni ko yaa ñu waxoon lii ak lii ak lii te yaa ngi ci deux ans de trois ans la dese exemple ma jël ko ci man te li may wax ci man li may wax nii li tax ma koy wax yéen ñëpp la concerné yéen ñëpp tout le monde soññ naa leen te dama bëgg ngeen def ko gars yi ni naa la politique boobu amoon fi amatu fi de jeex na de on va contrôler et gérer notre destin suivre notre destin ba pare gérer notre peuple notre notre Sénégal dafa am ñenn ñu may citer seen tour dama leen di yóbbante ci monsieur la maire biram Souleye job biram Souleye job man moo dugal Pastef moo dugal ci politique moy maire commune zone nord dafa gagné maire bi liggéeyam motax tax ba mu bëggee nekk député laaj mu ñëw Thiès yëpp voter laat ko mu gagné deux ans yi bu liggéeyul won dara présidentiel yi kenn du ko votel bam ba ties nord ba mu nekk ñuy war score bu reuy parce que mi ngi liggéey xamna ni mi ngi liggéey mais dafa am len luñu waxone ta dama ci and man and ak ñom wax man la dekk ci xaw dafa am luñu len waxone ta man bëgguma bës jot ma dugg ties di tok sama koñ ñu may xol naan way xolal ñi ñoo ñu waxoon lii élection municipale mi xolal dara doxuma ci lolu ta mayuma ko kenn ci kër aduna biram sulay jow dafa am ben terrain bu xaw am terrain bu mag ñu joxoon ko jaxaw mais terrain bi dafa yàgg yàgg yàgg ba am benn promoteur bu ko commencé woon jël commencé dagg yenn parti yi def ko ay terrain ma woowaa jaxaaw laaj leen këyitu terrain bi laa soxla parce que projet mairie bi dañ fa war a defal benn complexe bu mag ñu ñu orienté ma ci ma wax ak euh, famille Diop famille Pape Bo Jaxaaw ñu ni ma waxal ak président bi Dani Boy ma wax ak Dany booy mu jox ma plan kër gi ma jël plan kër gi woo Birame Souleye Diop jox ko ko mu vérifier ko impôt domaine ni ma sëy terrain bi est-ce que xam nga am na promoteur bu nu jox moitié lu bëri mi ngi koy dagg dagg na ko ba ngay commencé waaj a jaay ma interpellé waa Jaxaaw ni leen terrain bi bu ngeen ci jugul dinañ ko jaay gars yi jug xoolaat kayit yi dem wax ak waa waa ji ni non man xawmal waa ji retiré wu ñu récupéré waat yooyu yëpp teeku Birame Souleye joué ci rôle bu rëy Naby Vision ñu koy remercier monsieur le maire chapeau maa jël kayit yi jox ko ko moom mu réglé ko ba terrain bi delluwaat ci loxo jaxaaw ndax jaxaaw laa dëkk doomu jaxaw laa peut-être information bi ñu bëri xamuñu ko mais problème bi mooy terrain bi dañ ko war a def complexe pas bu ba jaxaaw loolu la su lay waxoon dafa am ñu may wax te dama bëgg lii ñu def ko le plus rapidement possible te list bi may wax nii ngeen bind ma ci suuf man ci suuf bu leen ma def ci kaw ci suuf bu ngeen demee ngeen di zëy Dani Boy président Dia bi yor kayitu kër gi kayitu terre terrain ba Dani Boy kayit yi ci loxoom la ne conseil la ci mairie ba jaxaaw la ne ak ñaaña jeeju nekk mairie ville lay liggéeyee mais moom ci délégation bi laa bëgg mu bokk ak ak Sidiki Traoré porte parole presque mairie ba foofu ak Racky Gueye maam Ali Gueye sama ndaanaan ak Racky sama sœur Younous Diop doom Pape Ba Diaw ak Ndaxte Diop ak Bilal bi naan comédien la bi doon sensibiliser ak président jaxaaw bu bees ak entraîneur jaxaaw ak képp ku nekk jaxaaw def leen délégation yéen ñëpp ngeen jubbal mairie zone nord woo Biram Souleye Diop wut ak moom rendez-vous dem toog ak moom ngeen ni ko carrément terrain jaxaaw boobu nga ni ngay def complexe pas bu ba jaxaaw mu teg lu leer nañ seen loxo parce que gouvernement bu bees bii ñuy def xam ngeen ni dina ci dugg moom ala kulli xaal na fa nekk ministre balaa muy baye mairie bi ñuy voter pour jox tegaat ko ci loxo keneen dem len ci biram soulay job mu wax len lu leer teg ko sen loxo pour terrain boobu complexe Papa Boy Diakhao bi lan ak lan tam lu mu leen wax na leer naka bind ci kayit téye parce que ma ngi ñew te ñun ñep bu ñu ñewé lu mu wax noonu ay affaire wax dem sen amatul Sénégal de limay may wax ça concerne toute la population sénégalaise mairie commune ak département bu ngeen mëntati nek il faut mettre les points sur les i ci mairie ci mairie balaa maa dee maire yi di ñu bëgg a rey di wër di defar lamp naan defar naa lamp lamp fii chef de quartier ñooy defar lamp yi bu ma génnoon léegi gis porte bi coupé maay dugg sama kër man étranger tak tak composé fii waa fii waa électricité ak ndox la ñu boole woo leen ni leen sama buntu ko joxe adresse lamp bi daa coupé ñoom ñu ñëw man citoyen normal mais maire yi dañuy defar porte sax génn ci mbedd bi wii télé wër leen wii xoolal lamp bi ma defar mais sax dem len di wuti ji ay supermarché yu mag ay ngand mall marché yooyu ngeen indi ko seni commune marché yi ngeen tabax len en hauteur yok marché yi yooyu ngeen yi bako mais du ay lampe ñu defar lool la bëggon wax te maire yi ma fi sit kérok Thiès ni naa Babacar Diop maire ville bi Mamadou jité maire zone s Ousmane Diagne maire zone ouest ak monsieur biram souley Diop ak conseil départemental Siré Dia nga kok kok mom kaña la moy yak poste ba mu yak mané mbour kat foré classé bobu ñu tiaxat tiaxaté dama bëgg ngeen taxaw ji nguur gu bes gi ñew récupérer waat ko tek ko ci loxo ci soyi té limay wax mané ça concerne tout le Sénégal ku nekk sa ville sa quartier ku fa nekk di def ay désordre gën leen gën dénoncé ko tiaxat tiaxaté dafa jex Sénégal c'est fini bu len ko nangoti posé naa leen question lan moo tax defoo leen conférence de presse digg Thiès Thiès waa yëpp di leen dégg ngeen ni la forêt forêt classée bii bu nekk mbuurkat nguur ngeen kay caxat caxatee di ko dagg di jaay te war fa def usine wala entreprise wala société wala def ko nouvelle ville kër yi sax ñu koy joxe pour après gars yi di fay. li may wax ni ça concerne tout le Sénégal exemple laay joxe parce que sama commune la xewee ak sama ville loolu laa leen bëggoon wax tey yi. Je vous ci taxaw réconciliation nationale nag dégg na président Bassirou fay wax ko mais man 2025, avril 2025. Nous avons un bi def programme préparé def semaine nationale de la jeunesse et de la culture semaine nationale de la jeunesse et de la culture Nous avons une ak yoy wax réconciliation nationale bi gëna ngand pour la jeunesse di fête de la jeunesse te lol dinañ ci ñëwaat. tas message bi yéen ñi ne ci commune yëpp commencé leen jël seen responsabilité dès à présent mairie lay commencé commencé jëm kaw Naby Vision wasalaam gars